may naa la sa baat fii boo fi toogee yaa fi ba sa bopp. dinaa la jox cinq muy may. may. bu njëkk. instant bi maa ngi war a dem États-Unis de France état d'ailleurs sax ñoo ngi nii di jéem lu jënd contrat Australie mais yooyu noonu moom sama nijaay moom moo ko waroon dox loolu cëram la. yëgoo buur dafa wàcc jabaram. yëgoo kaw teef. bëgg naa ko gis. nga ko. ci kër gi. dafa ma cinq millions may ko njëkk. bëggoon nag yow mi nga xam ne yaay mbokku buur buur a tax ma xam na buur mooy sa lépp nga sol sa dàll. sama xarita de. fu buur la ci dëkk bi jëlal li ma ko seetal ma ko gisal ma ko. bu déglu de lan laa war a def delloo xaalis bi. nee ko waaw. looy xaar ci ko wa allo ah egg si nga bureau ah waaw d'accord kon jaar benn yoon ok à tout allo. waaw Kumba. Ceylam Tooro. Mbour Guédé li kange. waa na nga def nag. ça va. waa ci loone. kooka la. ah waa ah, Biram Code ah xam nga ne Biram Code rek la yow heure nag. ah naa def. mani yëg naa li xew lépp soxla naa la. mbaa jàmm la. ah waaw waaw. waaw maa ngi sama kër. déet mënumaa ñëw kër ga man kay xanaa mu ah. waaw xanaa ñu toog waaw waaw xanaa ñu daje fen rek fu fu fu sombre rek ah. ma baax na. Ah, kon jeex na ñoo far. kooku. toos. toos. bu ma ne toos. yow bës jar na bi. am bës rek bàyyi sa nijaay. yaa ma njëkk a xam bës. loolu moom kenn waratu li ma def ci bës moom kenn defu ko ci. ah ah mu nga am gàddu koor da ah? nga am gàddu koor waaw sama gardien la ah waaw kon de yow xam nga ne moom yow xaw ma kan waaye sa bës dox na yow ah yow yaa ma gën a xam bës bu doxul ah? doxul nag yow ma xaw ma kan waaye yow sa bës dox nañ waaye yàlla jëm ca kanam rek. oui ah? mhm. mhm. mhm. moo tax nga bës bi. allo. Kumba ça va Serigne. jam tan. Maodo. Maodo ni Amine jam kay. Eh, damay ñëw Dakar. gannaaw suba incha allah. Ah, d'accord maa lay xaar. ok incha Ouais. xam nga dama nekk nii di def sama album slow. album. dama nekk di def sama album slow. ah Modou. baal sa li ngay def Modou. doo ma roofu tàngoor ma dugg ci dëkk bi naan damay dugg studio bu Modou Mbaye di wut bës fu ne ma sangutu fa. Ah? bi ndox mu sedd guy la. non. damay bañ nga def mën nga defoon ci béykat. Oh, non xam nga benn nit la. benn nit mooy waxee lan damay dugg de. ah. lii bu yaa ngi métti de. ah, ah <laughs> maa ngi jégalu tonton. mooy lii nag moo ah. ci ah? bës. ma ni. bu boobaa voix lay def. léeg-léeg ma kër léeg-léeg ma woy loolu neex ne la jumal ba ma xocc say ba dëgg doomu jàmbur ko ko yàq da ko jur moo du bàyyi loolu day ànd ak morso bi yaa may dégg ba foo dem boo ko play bëggee ñu xam ne kit ak voix bi ndaanaanu démbal du ndaanaan tey ah ana ça va ça va alhamdulilah. Ah. naka liggéey bi. ça va nii rek. naka naaj wi. tàng rek tàng naa la gis. waaye gis nañu gis depuis lors. ah depuis lors c'est vrai. bien merci. bien mhm. dama la seet si woon. Mhm. pour euh, waxtaan ak yow tuuti. Euh, tout d'abord maa ngi remercier ci vraiment jàppale bi ma jàppale woon ci sama problème bi ma la waxoon. non loolu ñoo ko bokk quoi fàtte ko fële. merci book parce que mënoon na la ci bañ a fekk. di remercier tam ci moment bi ñu ma offrir parce que vraiment surprise bu mag la ci man. non non merci quand merci quand beneen affaire bi mooy dama bëggoon tam ñu waxtaan ci li ma joxoon. dama ñëw daal vraiment pour pour delloo la ko. delloo may ko njëkk gi. parce que xam nga sëy du benn fan te du ñaari fan. xool naa daal xoolaat xoolaat mais daal sama xel daal vraiment may ma ma nangu ko bëggoon rek nga may ma tuuti ma gën a xoolaat bu baax tax nag sama njëgënaay. Hmm. loolu <coughs> mais nga baal moom. Hmm. da bëgg a waxtaan ak sa njëgënaay. wala da bëgg waxtaan ak say nit. même soo waxtaanee ak samay nit sax. ma hmm. décision finale man maa koy jël donc du ci dara loolu. mais est-ce que kon li la dese ci xaalis dina mën a régler sa problème mu bor yëpp. am na lu ma jot a régler. loolu tamit vraiment si ça tient toujours te tam dama jëloon engagement pour delloo la ko incha allah maa ngi ci ba tey su ma jekkoo tuuti rek dinaa la ko dinaa la ko delloo. mais daal lii mooy sa décision daal. ah mooy sama décision. waaw. naa li nga wax sa décision la respecté naa ko waxoon naa la keroog bi ma fay jógee ne lu ma la mënti jox ak lu ma la mënti wax sa conscience bàyyil naa la ko sa décision yaa ko moom donc li nga wax ni dama la ciy fekk si. merci beaucoup. léegi su ma jógee dinaa jël sa numéro jox ko sama secrétaire. Mm-hmm. dina la woo communiquer la sama numéro de compte saa yoo ko mënee nga biire fa xaalis ba bon li ci des nag bon. ok ah, merci beaucoup de toute façon ci confiance bi dégg nga. non non maa doo bàyyi la nga liggéey gis naa nga jàpp. pourtant mën nga toog naan ma dem rek bàyyi ma dem ba beneen yoon incha allah bàyyi ma dem merci beaucoup. au revoir. Eh, bon journée. tamit ci biir album slow ñun dañ cay am tourne international moom moo tax. tournée. internationale bi ñuy def. tournée internationale ni ni ni laa ko yëgee. ah ni daal tournée internationale waaw. dañ cee am tourne international te xam nga comme loolu tamit am na loo kii rek dangay tam fausser quoi. dañoo signé contrat bi. non si gars kii ñu ngi ci affaire yi nii defaguñu signature yooyu yëpp kii yoo guñu. dugal ngeen visa yi. non léegi duggagul tamit. ma ne indil ma fii ma signé ko maay sa nijaay te maay sa porte bonheur gis nga gore buy def dara dayoo mag surtout artiste bu ndaw da nga am talent bu fooy sa bopp du seetaan kenn di saraxee nag ci avion yi. maa nga dem ba bitim réew déngalu comme ni dugal la ci pante néeg yooyu saal yooyu nga fay joué juróom-ñaari nit du ma ko def yow foo ne yow maag sa baay la woon dans le seetaan yow fu ma jaar sa baay oh. tonton yow tamit tonton yàlla nu tàggale. bul a tàggale. Oh, oh bul def nii tonton foo defee nii tamit. ma ni xam nga lan la. indil contrat bi ma signé ko. waaw yooyu dëgg la xaw ma mën tonton mooy. visa yi dugal ko ma dar la jeune talent day ku ñuy dir da ngay da waaye xam nga léegi mi ngi mi ngi bëgg a métti nag saa yi kii nanu may tuuti ñu waxtaan nag ah ma ni rek woo ma. tons xamoo ma lan dama man dafa am lu ma fi indi woon. man dama ñëwoon pour ñu waxtaan mu bëgg nga waxtaan ma ak sama nijaay mu nekk sama ménage. mukk caat la bu mu ko yëg. bu yëgee contrat bi da koy yàq yàqet te ñemoon avion. tonton sa nijaay bi dem nga leen ma sama nijaay. tonton xam nga nijaay xam nga nijaay mooy yaay mooy bàyyi tamit. bàyyi ma ne nijaay dëgg dëgg la lépp dëgg la nijaay la waaye sa nijaay bu la gëmoon du la iñaane si bés bi. li ma xam ci tur xamoo ko. Europe international doo ko maasale téye ko sama loxo Ablaye Ndiaye bi ma yóbbu Baltimore ma koy toj keroog julli bi ma julli bi ma yi gisee dañ def ne américain laa fa laa juddoo ñëpp naan ma biram biram biram may wekki nga naan ma nangam nang boo xamul dangay laaj léegi yow foo tonton man maa ngi fii rek soriwul man maa fii ci ginnaaw nii rek ci côté voie foofu noonu. ginnaaw voie yi. fii nii rek si ginnaaw falaa am sama appartement meublé. jëlal bagage yi ñëw. gu ma ne gu la yàmbal du ma ko tonton fi ma nekk yi jël naa. fi ma jaar ak laa bëgg a jaar ak yow. jëlal bagage yi ñëw. waaw fooy sa bopp da bëgg a sa bopp. jeune talent bu toll yow ànd ak sangatuwoo xëy ñoom la sax kon xam naa ba temps doo doo fi ñëw suba. dinaa la woo. di nga ma woo. la woo. kon baax na. laa ilaaha illallah. aram sàll ko eh? naa la maa ngi ci jàmm bu baax tubaab kàlla gis nga yow laa gis naa ah, sa soo bu jot mu xëy sol lu bees armoire baa nga riima ba tey mm. tubaab kàlla yaa ko moom noonu la <laughs> maa ngi nii rek eh, waaye na naa la waaye maa la raw bu baax a baax a ah. baax ngeen ngi gis sa càmmiñ ak kookan la buur waaw non non barki de mu ñëw na fi set si ma. ah baax na ñëw <laughs> ak yàkkamti moom <laughs> dafa yàkkamti xam naa looloo tax mu ñëw <laughs> waxtaan ngeen bu baax. waaw ah, waxtaan nañ tuuti rek. kon wax naa wax na ne lépp. lépp comme lan. ah nga jéegu ñëw. waaw. aw bur ko. fanta siro yeneen ni yeneen ni. Hmm? jeex na takk abana feew man de bul wax ma ko naa la wax li la koy maa la koy wax si xam nga yéen soo leen tasee yéen a ngi wax seen yeneen ba fàtte se lu mu war a indi wax la man nag man mi yàkkamti nag maa dikk ah loolu kañ sant yàlla rek kon li yàlla def na ko su soobee yàlla ma doon mébét ma it yàlla na ko yàlla mottali ba ma ñëw mottali sama jéego ci yow incha allah. yaa ngi tàkk. kontaan naa. maa la gën a bëgg <laughs> maa la gën a bëgg Diop ah. baax na yàlla baax na. waaw kay maa la gën a bëgg. <laughs>